점수 오르겠다. 마지막으로 전무야를 떠받들어. 우리도 사랑하고 선사 학교도 그렇게 하고 아무 격수 불빈 두비고 아무라고 우리 숨나고 날라고 그리스도 그리스도 loolu mooy soppeeku mi daal léegi yonent bi nag ñoo xamee ne yàlla dañaa nee na ko ba mu dem barab bi te fa jahannama mu fàttaliku li ñu waxoon Moussa na ko sumbil sa sa daal yi yaa ngi ci béy bi mu bugg a sumbi daalam yàlla na ko yow sa daal yi doo ko sumbi dox ko doxal ak moom fii yow بواقع العرش المجيد تطهقرت بعين غروب شمسه وبدت صحواء يرتبي سيدنا علي بن ابي طالب keroog bi nga xamee ne mbiram xayba te yonent bi nag bu kenn julle lu may xayba ñu wax ne bu gën a ñu gaaw dem xayra yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne jant sa place ba nga xam ne Aliou dana jo joox waxtoom mu bàyyi sa ndey sa baay sa dundu sa dee sa aljanna sa safara lépp ñoo gërëm ko gërëm kon bu toogee fii tey ci pays Baye Niass ba di xaar ko Baye Niass tudd Baye te Baye naan maa leen nga xamal ne kenn du doon nga Baye alaay waan nga yàqu benn may la woon yàlla la joxe na ko Baye jël na ko jeex na kon leen góorgóorlu bu baax nekk ay taalibe Baye nekk ay jaamu yàlla nekk ay xaalis billah yàlla xam ko moo gën a yomb du ko ndox wallaahi billaahi tallaahi xam yàlla moo gën a yomb du ko ndox tanta yàlla ne fu ne

boppam damaa toog na damaa soog sama benn rakk bu jigéen ñëw na ma baab la mu ne ma nga xam yàlla mu ne ko dëgg la ci yow mu ne waaw mu ne ko wax laa ilaaha illallaah bu wax laa ilaaha illallaah daal di yóbbu yàlla rek mooy yàlla toog naa nit muy mu ngi ma xool ma ne ko la may xoolee mu ne ma bëgg la rek ma ne ko bëggal yàlla ndax yàlla mooy ki nga xam ne soo ko bëggee mu nekk di yow man mënu maa def soo ko mënu maa def kenn loolu kon boobu woon bëgg bëggal yàlla ndax yàlla mooy ki nga xam ne muy muy fu ne muy ci ñu ne te kenn mënta joxoñ yàlla ndax yàlla comme ne dem na xam nga yu biir nekk yàlla fa foo xam ne moom rek moo fa nekk mu aar wolof baabatu an wolofa wa xalaqtu xalqan taaraftu bihim fa bii bii aarafuuni bii boo ko seetloo fukki arab ñett la arafam ñett la Baba, Lubiram. Ini mereka, musik kan. Ah.